ثم علم رحمه الله إياكم أن هناك أخلاق وآداب ينبغي أن يتأدب بها ويتخبر بها المسلم تجاه ربه سبحانه وتعالى ومن تلك الأخلاق والآداب أولا إخلاص العبادة له وحده وعدم صرف أي عبادة لغيره قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ثانيا البعد عن الشرك وصحبه وكل ما يقرب اليه ثالثا موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه رابعا مراقبته تعالى في كل حين والعلم بأنه معنا بعلمه قال تعالى وهو معكم أينما كنتم خامسا البعد عن المحرمات لأنها سبب لغضبه سادسا الإكسار عن ذكره قال تعالى واذكر ربك كثيرا وكان صلى الله عليه واله وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه رواه مسلم سابعا الاستقامه على دينه والثبات عليه وعدم التراجع عن ذلك والمركات الفتن والمغريات قال تعالى فاستقم كما امرت وقال تعالى فلذلك فقد واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم ثانيا التوكل على الله وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين تاسعا الصبر على فضله وقدره وعدم التسخط قال تعالى واصبر على ما اصابك عاشرا التوبه اليه ودوام الاستغفار قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه عشرة المحافظة على الفوائد والواجبات وفي الحديث القدسي وما أقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه رواه البخاري الثاني عشر المصاب إلى الطاعات قال تعالى وصارعوا إلى مغفرة من ربكم الثالث عشر الندم على التقصير في الطاعات وارتكاب معصيته وارتكاب معصيته والعزم على عدم العودة إلى الذنوب وفي sant Yàlla subhaanahu wa taala cant ñi mu yelloo ñoo ngi koy sant di sant moom dimbal di ko ñaan jéggal suñu bàkkaar ñi wax ne ñi yàlla ci moom ñoo moom ci jub yàlla dina ci maanaam leen boobu mooy sant ñoo ngi seede amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëkk jaamu bi jëriñ ñàkk jaamu koy waaye pour yàlla subhaanahu wa taala ñoo ngi julli ci yoon Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm xew la mucc moom ay saxaaba ak képp ku topp yoon bi nit ñi ba gërëm si ci gannaaw la moom ñu leen di dégg di dégg su bopp ragal yàlla di jël ay jigéen bàyyi ay beneen moom borom subhanahu wa taala gannaaw la moom ñu xam ni am na ay jikko am ay melokaan ak ay jëf yoo xam ni dafay yenn ci jaamu yàlla bi teggin bi ak jikko yooyu nekk ci moom mu am taxawaay boobu jëmale ko ci borom subhanahu wa taala bokk na ci taxawaay nit bi war a am digganteem ak yàlla di ko sàkk ba ca yëpp mooy yàlla dañ ko war a jaamu jaamu yàlla nga dañ ko sellal dañ ko sellal moom sell nga bañ a jël benn jaamu yàlla di ko jaayee lenn ci ay bindaa pour yàlla bàyyi yàlla yàlla nee na wa maa umiru illa liya'budu llaha muxlisina lahu diin nee na jaam yi digal bi ne ñu jaamu yàlla loolu tax ñu sàkk leen te loolu la ñu ci ñoom loolu doon leen di digal ñu jaamu yàlla jaamu yàlla boobu ñu sellal maanaam jaamu yàlla li ngay def yàlla rek tax bul gisal bul wut bul wut kuréel tànk bul wut kuréel yow da ngaa war a julli da ngaa war a sàkk da ngaa war a woote yow yàlla tax ngay def yàlla li tax ngay def xam na tax ngay def yàlla la fay nit ñi dafa yàlla lay def loolu moo jaamu yàlla dina sell na yàlla rek tax ñaareel ba mooy na nga sori di bokkaale sa diggante sa borom mooy bul wutal yàlla ñeent bul wutal yàlla borom bul wutal yàlla maas bul wutal yàlla nekkaay bul wutal yàlla doom bul wax ni am na ku mën yàlla loolu wala am na ku xam yàlla am wala am na ku sañ yàlla sañ dafa am ay mbir yoo xam ni yàlla a jagoo nit jagoo ko malaaka jagoo ko jinne jagoo ko mbirum yàlla la yàlla ci wéet moo kat boo mbirum la boole ci kenn loolee nag mën na ne mbirum yàlla nit amul place diine amul ci place malaaka amul ci place parce que yàlla am lu loo xam ne ñëw fa ak ñu daw loolu boobu ñu ko beneen bi bëgg ñi nga xam ne ñu ngi ci ak tënku ci diine yàlla ñu ngi leen bëgg waaye képp ku bañ yàlla bañ leen yàlla bañ diine yàlla bañ jullit ñi koo ngay ne ko bañ ñetteel mooy bàyyi na yàlla soo wéeree ak soo wéerul foo ko ci ne na nga bàyyi na yàlla subhanahu wa taala xam ni yàlla du ne boo nekkee ci nit ñi ngay bàyyi na yàlla boo wéetee yow ko def la neexee borom bi subhanahu wa taala xam ni yàlla xam ne lépp te borom bi ci fépp ak xam-xam même bu fekkee ne yàlla subhanahu wa taala koo wéetu dañ yow ba kenn ñëw ba même bu fekkee ne yow yàlla xam ne kon ngay bàyyi ñaan lu ñuy sol ab wax comportement melokaan jikko bu yàlla xaraamal na mu sol parce que loolu boo ci tàbbi day waral merum yàlla teg sa kaw teg sa kaw te yàlla bu mu mere du mucc parce que ci kaw suufam day dox asamaan la doon tiim ngelaw li lay maye loolu kooku lu mu rëcc su ma bàyyi xel beneen bi mooy bëri na ci bëri na ci yàlla borom bi ne la yëngu ko واذكر ربك كثيرا دير tudd yàlla tudd yàlla bu bëri ba tudd yàlla moo ni jàmm li ko mu tudd yàlla saa su nekk yaay ay soo mais yonent bi alayhi salaatu salaam saa su nekk tudd yàlla buy jëf buy yeewoo buy dox bu toogee bu taxawee buy yéegi buy wàcc dana tudd yàlla ci ci anam bu nekk kon bu góorgóorlu tudd yàlla waaye lii ma jàng yonent bi alayhi salaatu salaam bu mu jàng da ngeen tudd yàlla ñu tudd ci bokk na tey mooy nga sax ci diine yàlla si bu nekk ci ay jafe-jafe wala nga nekk ci ay natt wala ay mbiri ba tax nga jaare daal di bàyyi góorgóorlu ci diine mbir su nekkee lépp yomb nga nekk jaamu salaam jaamu sa diine su nekkee jaamu sa diine bu la dara jaaw du ko ci am du ko du ñu du du du dara lu la war a mu jaaw ko daal di bëgg daal di bàyyi sa diine wala jël ginnaaw sa diine loolu jaarul borom bi wax nañu daal islam ne ko da ngay jub wàcc ko ñu ko digle saa su ne wàcc dem waxaat ne ko na nga woote ci ñu te yow da ngay jub wàcc te bu toog baax ñeewu ñeneen ñi nga xam ne ñoo wàcc ñu parce que ñu wàcc ñu dañuy bëgg yow nga dégg ñu wàcc fekk ngeen ci caaxaan euh, euh, nekk su ko defee ba bokk ñoom ñàkk bi <clears throat> juróom-ñetteel la mooy wóoru yàlla wàcc ñu ci yàlla <clears throat> looy ñu jàpp ne yàlla mooy sottal bi amul kenn muy sottal bi pour yàlla looy ñaan bul tuumal kenn bu addina kenn amul kenn ku mën a am nit ki la war a am pour yàlla yàlla mooy xanaa yàlla mooy yàlla yàlla mooy xanaa esprit boobu soo ko leen doxee day am ak jël loo xam ne waa loo ñaan boo addina kenn bul tuumal kenn amul jurul ci yow amaana mën a borom bi bañ a ko loolu moo koy yàlla bokk na ci mooy yàlla su la nattoo natt yoon nag ku baax nga sant yàlla waaye nag léeg-léeg ñu métti lool jéggi dayoo ba teel a nelaw ngir say xalaat te sax nga am concentration waaye am na loolu lépp loolu muñ nag ngir yàlla bu mu tax nga leen di naaw si nii bu mu tax nga leen jaar bu mu tax nga kaay ba def loo rek bu mu tax nga loolu loolu loolu ci yéen dem ci ginnaaw yàlla comme ñu def say daaw dana fi neex ak yu naqari yu neex yi daf yàlla yu naqari yi demee ci mu dem yàlla bokk na ci mooy luy del jàmm sa jàmm doomu aadama ñu ko yàlla dimee doomu def baakaar léeg-léeg nga xool loo war a xool léeg-léeg nga wax loo war a wax léeg-léeg nga dégg loo war a déglu léeg-léeg nga jël loo mun léeg-léeg nga def loo war a def léeg-léeg nga ñaaw njëkk ci loo war a ñaaw jox léegi yooyu dañ di bàkkaar bàkkaar yooyu li koy jóg ci yow nit ñoo koy jëlee mooy boo koy tuub yéen ci borom bi tuub boobu moom moo koy as kon nit mën nga ñaan di tuub yéen dellu ci yàlla mën nga ñaan saxoo istifaar jéggalu borom saa su ne subaa loolu bu dee bëccëg yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na yàlla dafay tàllal loxo ci bëccëg aussi fanaan na ay bàkkaar tuub yaa ngi jëloon su guddee daa lay tàllal loxo pour ci yenn doo def ay bàkkaar kon jaar bi saa su ne ngay jéglu borom subhanahu wa taala bokk na ci lii mooy di yàlla wax ni nañu tuub yéen ñëpp ñi gëm yàlla tuub leen ngeen am fay kon tuub ak jéglu yàlla ngay war a fay bokk na ci mooy di sàmm farata yàlla julli bu nga leen ba su war jotee na ko def bu fekkee ni da ngaa war a génne ak sa bopp dina ko am na ko def soo war a ay màggal na ko def soo war a wax bu baax na ko def su wax ji bon bu dee sa làmmiñ comportement bu baax bu gis yow comportement bu bon bu nekk ci yow su ko defee daal di saxoo santaane borom bi subhanahu wa taala loolee dafay waral na am ngërmande yàlla ci àdduna am ngërmande yàlla ci li nga xam ne moom mooy moom mooy alaaya ak ci gaawatu ci li nga xam ne sori nañ tay kàddu ci ay mooy yàlla ak bàkkaar boo xam bàkkaar bu ñibbi si bët la moo xam bàkkaar boo xam ne wax boo xam bàkkaar bu liir la moo xam looy yàlla moo xam koy yàlla moo xam jëf yooyu ak muy posé la dinañ ci am li nga xam ne moom moo tax mooy yàlla mën la mooy yàlla dinañ ci jëlee li nga xam ne moom mooy bàkkaar te bàkkaar jàmm da koy sori doonte dafa tuuti parce que bàkkaar yi tuuti bu laajee bëri doon xam ne yoo xam ne xeer yi wala montagne yi xeer yi yoo xam ne dañoo ñoo dañoo loolu yàlla dafa war a def aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من قال ما في سنة قلوبي تدمير julliwaat yow itam Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaan jàmm xéew la mujj bokk yi bokk na ci ba tey taxawaay bi li war a am jëme ci borom subhanahu wa taala mooy jiital moomu yàlla ci moom keneen ku mën doon jàpp bi moomu yàlla moo war a gën a kaw ci moom parce que yàlla mooy sàkk mooy bind ba yàlla su waxee waxu keneen ku mën doon suuf moomu yàlla lay nekk keneen kuy wax day fekk mu ngi doon ne li yàlla lay wax mu dem di ko jëf waaye ku wax li sama doom yi yàlla di wax kooku dañu bàyyi wax beneen ba mooy bokk euh, euh, fonk ak bëgg bi la yàlla bi jullit bi wala am téere boo xam ne war na kaa gën a moom lu toll ni alquran amul téere boo xam ne war na kaa gën a bëgg ci xolam lu toll ni alquran amul téere boo xam ne war naa yaakaar ci moom barke war ko alquran amul téere boo xam ne war naa leen programme ci jéem ko jàng jéem ko jële jéem ko dégg lu toll ni alquran kay parce que mooy téere bi yàlla wàcce mooy téere yoo xam ne moo boole nit ñi ci la soowu ak benn mooy benn diine bi nga xam ne ñëpp ko bokk yéen di nga alayhi salaatu salaam yàlla wàcce ko def ko day doon diine bi nga xam ne mooy diine islam te benn diine bu ñu wàcc jëlee ci kaw asamaan ñëw ci kaw suuf jëm si yàlla ñu naaw ko ak ànd mooy diine bi nga xam ne mu dégg ko am xam yi waaye mooy diine bi nga xam ne mooy yàlla diine yi doon wàcc jëlee ci yàlla ñëw ci jaam yi ak yéen te dafa war a bokk ci programme mbir bi mu koy jàng jaarul ci ëpp yi journal bu génn nga jënd ko lii magasin bu génn nga jënd ko lii CD wala cassette musique bu génn nga jënd ko am am ko ci alquran bokk ci programme kooku jaarul da ko war a jàng di ko déglu waaye di ko yëg dégg ko di ko yëg bokk na ci mbokk yi mooy préparé jàpp ne war naa préparé dañuy jàng parce que dañuy jàng bu kenn ko xam munoo mus a mus di wii di def ay kàddu wala di daxaar doomu aadama nit mi yow nit sa borom nit mi yow mën ko éviter di ko def ko laal waaye yàlla kenn mënu ko law kenn mënu ko laal parce que kooku daje ko kooku amoo ci choix amoo ci tànn kooku daje yàlla kon kooku daje ko nag li lay ci musal mooy da ko bàyyi waaye da ko préparé ci jaamu yàlla sooy li nga xam ne moom mooy dañ koy def kooku daje mooy sa xol bi nga gën ci bëgg yàlla subhanahu wa taala ak yenoon tam bëgg yàlla bu foor boo xam ne dafa yemale dara bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam bu foor boo xam ni dafa ko yemale ci mooy màggal bërëb yàlla màggal ñu màggal ko ne lay jaay mooy bërëb yàlla màggal ci kaw suuf bërëb yooyu dañ leen màggal kooku leen bañ leen mooy bañ leen caaxaan bokk na ci loolu lépp demee yaram yi ak borom xam-xam yi ak nit ñu baax yi nga xam ni islam di ko jottali di ko aar ak di ko défendre ci képp ku ko yàq kon ñi yàlla màggal fonk leen jox leen place da leen màggalal leen fonk bokk na ci bokk yi mooy sori lépp loo xam ne lu yàlla bañ lépp lu leen di bañ lépp lu islam bañ dañ ko sori waaye eh, di xalaat ci màggaay bindakoo yàlla yi curaat yi yàlla sàkk nga ciy xalaat mooy doon yaqin nga doon seet ci ci nga xam ne ci biir doomu aadama bind ci ni bind ma la yéen ak yéen nga yéen nag bind jiir bind jax yi bind moom kañ bind garab yi nekk ak moo leen bu nekk kaw suuf mu bind ko ngay xool ci loolu loolu dina doon yi nga gën a xam màggaay yàlla xam ne yéen ñi ku ndaw parce que mën na bind lépp dañu amoon doomu aadama yi doon ay junni junni million kii bind jaam doomu aadama yi bind jaam yooyu ba juumul ci ñi leen bindee ñi leen bindee ñoom bindin moo xam ne gis loolu nga waxee moom mu jox la màggaay ak ñelloo la ci ne yëf yi ñu ko romb mag waaye bañ a xalaat ci jëmmam moom parce que xel doomu aadama dafa tëddee ci xalaat ci jëmmu yàlla mu la yàlla loo xalaat ci sa bët wala loo gis ci sa bët ba jàpp ne lu ko naan yàlla sore naa moom moo xam lu naaw moo xam lu ñaan la loo xalaat sa xel war a lu tax ba nga xalaat ne lii boobu dafa yàlla li la war a te mu koy sooy loolu xanaa sax nag mu ñaan ne gànnaaw ba jàpp ñaar ñu la mel te mu koy sooy donc yooyu mooy yenn ci wàllu léegi yoo xam ni jaar na mbir bu nekk xam ko jëmale ci borom subhanahu wa taala ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم ورحمه الله